Thank you. Assalamualaikum warahmatullah. Dara hmm, fajar, eh, yang lain dijara, yang lain ada doli sutro. Yang fitah yang perjuah hanya ti, biar mom lagi ke, anak, ah, kalau bahana. Yang fitah purja hanya ti, biar yang kita si, itu sehirul umuri, mana yang bala imbir. Wah, anak lucu gini, daya warma, lepuloh cinyan cikar tu ni Allah, Allah dah follow. Lih, ñu ne pour yombali mbir la da koy sikkar boo loo ci ñaan ci kàttanu yàlla yàlla defal la ko euh, la chàkk fii lii yëpp ay mujarabaat la incha allah def leen ko rek ngeen ñëw yàlla baax na bismillahi rahmaani rahim mooy basmala 787 bi ñëpp xam nañ ko waaw da ngay jël nga defee àlatifu 1161 suratul fatiha 114 yéen a koy zikar boo julee suba ba pare zikar ko xëy bo jullee gee ba paré zikal ko tëdd japp ko une semaine nga xol lepp lo ci fas na doon benn fas bi sey da bëgg a jombé dul na ngay ñaan lu jombé té te bëgg nek milliardaire te na né amo benn activité bi tax nga nek milliardaire ce sera comble hmm? ah bon kon non la démé da ngay ñaan li mëna nek te gëm ni yalla dina ko def ci kàttanam ak mbaaxam ci barki yi ñet mooy bismillahi rahmaani rahim 787 nga koy def nga def yaa latifu 1161 nga def suratul fatiha 114 yéen a koy zikar soo xëyee suba teel boo jullee fajar ba julli suba ba pare nga def ko boo dem def say activité nga dem defi ko boo jullee gee ba pare nga defaat ko booy tëdd nga nelaw incha allah jàppoo ko une semaine nga xool mais li nga cay ñaan benn yoon wi loolu ngay ñaanal rek dama bëgg sama yaram bi li ci métti lépp suñu borom safara ko ci barki yonent bi bi sharafat qur'an yàlla noonu la la koy saafaralee ci kàttanu yàlla inshallah ñaaral bi ñu ne comme talway dëkk bi alam sarah bi ngay jàng ci seexa bi do ko bind nag da koy jàng da ngay jàng alam nasrah la ga sadrak nga def ya latif 129 wa wadaana anka wizrak nga def ya latif 129 alladi anqada zahraka nga def yaa latifu 129 ورفعنا لك الذكر كان قد في يا لطيف 99 فإن فانما العسر يسرا قد في يا لطيف 99 إن انما العسر يسرا قد في يا لطيف 99 فإذا فرغت فانصب آه، قد في يا لطيف 99 وإلى ربك فرغت قد في يا لطيف 99 وتدعو ما شغلك ما شغلك يعني ما ما تحب ما يعنيك غنيان يالله <laughs> yàlla soo paree nga ñaan sa soxla tajid sa mébét yooyee yàlla na ko antal ci kàttanam leer na yu dem fee lii moom képp ku sentir sa yaram fasoo ci yem fasu ku feebar ku ñu la indil bindal lii jox ko ku feebar ku ñu la indil bindal lii jox ko ku ñu ku ñu liggéey ku ñu la indil bindal lii jox ko yow nga sa yaram nekkoo yëgoo yëg nga ni yow zéro bindal lii def ko fatiha ngay bind ci yoon bi bismillahi rahmaani rahim nga bind tabbat yadaa abii lahabin ba mu jeex ba xawloon min masadin alhamdulillahi rabbil alamin na nga def tabat yadaa ba min masadin arrahmani rahim kadalika maliki yawmi diini comme noonu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu tabat yadaa ba mu jeex ihdina siratal mustaqima nga def tabat yadaa ba mu jeex siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin nga def tabat yadaa ba mu jeex surban wa xaslan da nga ciy naan di sangu jeex na lépp lu ne si yow day dañ ci kàttanu yàlla boo taayeloon tax dina dañ yàlla xam na ko lii lay liggéeyee man wala bul kaabatin musharrafa toog naa fii ñu may woo téléphone may génn di leen jox lii laa leen dolloo lii boo ba toog ci lii yàlla indil la leneen da ngay jël lii jox nit ñi ñu jël jëriñoo yàlla na yàlla def sa hmm? ma demaat dañoo wax ne tas xiilu umur yi lii day yombalay mbir boo amee yitte moo xam jafe-jafe la ci yow moo xam lu mën a doon da ngay def bismillahi rahmaani rahim 787 comme ni ko nit ñi xamee yaa Latiif nga def onze mille mille cent soixante et nga def suratul fatiha cent quatorze yii da nga koy jàng dang koy zikar nga ñaan li nga bëgg man mii kat sama yaram yii li ciy metti xaw ma lan la bu dee tawat la ak lu mu mën doon yàlla na ko yàlla teggi ci barki yonent bi yàlla teggi la ko ci barki ci barki lii leer na ñaaral bi comme dëkk way nu mel jamono bi dañoo wax dafa metti ak yoy saxol ci li rek léegi yàlla di dimbalé la xettalee la bu baaxa baax ci ci barki latif alam nasrah ngay bindal alam nasrah ngay jàng la ka sadraka def yaa latif 129 nga def wa wadaana anka wizaka yaa latif 129 alladhi anqadha dhahraka nga def yaa latif 129 ورفعنا لك الذكر لك قال يا لطيف صعب النف فإن مع العسر يسرا يا لطيف صعب النف إن مع العسر يسرا يا لطيف صعب النف فإذا فرغت فانصب يا لطيف غدف صعب النف وإلى ربك فرغب غدف يا لطيف صعب النف وتدعو ما ما شغلك أي وتدعو ما تحب li nga نيان يالا تجد مرادك بإذن الله يالا دي لا dina la wuyu ci loolee nga ci kattanam ak mbaaxam lii alxuraan la mu jarab la lii alxuraan la mu jarab la rawatina lii lépp loo am mu yitte ci yow rek def ko te yooyu lañ fi indi tey bii nag moom mooy faj lépp loo xam ne jafe-jafe la ci nit moo tax ñu ne bismillahi rahmaani rahim tabat yadaa ngay bind boo bindee la bismillahi rahmaani rahim maanaam faatixatul kitaab ngay bin faatixa bu ñu rabalante bu ñu rabalante baynal aayaati tabat yadaa boo bindee bismillahi rahmaani rahim nga def tabat yadaa a lahabin wa tabba maa ba xablun min masadin muy benn alhamdulillahi rabbil alamin nga def tabbat yadaa ba mu jeex arrahmaani rahim nga def kadhalika maliki yawmi diini kadhalika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu kadhalika ihdina siratal mustaqima kadhalika siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin tabbat yadaa abi lahabin wa min masadin ñu ne la shurban wa ghaslan shifaa'un li jami'il amradi wal mushkilati wa nahwihi ay wa nahwihima lii du si dara wa nahwihima lii ku ko xam lii ku ko xam nekkal sëriñ lii luñ la indil luñ la indil rek da koy faj ci kàttanu yàlla lu ma xam laay wax nag est-ce que est-ce que yére bi ma sol jëndee wuñ ko lool sax ah lii kenn yow su ma ko defee fi mun naa la toog fi ma toog bind ko jox la nga naan sangul naan nga xool yàlla nag bu la yàlla jaay ba nga baxal ko ba mu xaw nu ndugg nga def ci def ci loxo xorom bàyyi ko sa yaram ñeme ko ngeen ko paw yàlla xam na ni sama dëng bi denti essayé leen def leen def leen hakuna aya huna mbaɗa taba euh, sawte masadi basmala mbada tabat heda ha gasa ha min masadin mbata kadi arrahma alhamdulillah rabbil alamin ko non a faami assalamu aleykum wa rahmatullahi wa yalla def sutra def tawfiq inshallah jere ngeen jew islam kubel kubel ndur da wow.